institution aujourd'hui am nañu benn alternance bu bees ak un nouveau régime le président de la République s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui est une institution naka nga jàngate bu jëlee dogal souvent euh, ñu di ko critiquer bu signé ñu di ko critiquer est-ce que loolu du oyofal euh, ay décision ak i dogalam ay surtout signature am waaw il faut ñu xam ne aussi dañu hérité benn situation boo xam ne dysfonctionnement démocratie moo ko andi. et pour la première fois au Sénégal pratiquement en direct on fait face à un conflit direct entre ce qu'on appelle la légalité et la légitimité. Mm-hmm. ci même camp bi. oui. conflit légalité légitimité. te conflit bi dafa nekk conflit direct surtout bi nga xam ne après Samba Ndiaye ñëw na. dëgg la. ñi légitime ni ah ki légal bi attention. Mm-hmm. c'est que bu ñu àggee foofu il faut ñu xool généralement nu man damay def ay poste di leen attention. Mhm. Bassirou Diomaye Diakhar Faye mhm. président de la République. Mhm. jox na lépp Pastef jox na lépp Sonko. oui. waaye bu ñu fàtte moom mooy président. de la de la République c'est la clé de voûte des institutions c'est l'autorité suprême. oui. kooku muy muy opposition muy pouvoir mhm. dañ ko war a respecter parce que képp koo xam ne yaa ngi ci opposition sa prétention mooy nekk président de la république mhm. donc bu fekkee ne da ko xarab sànni fa ay xeer boo demee doo fa fekk dara tout à fait donc foog ñun ñëpp ñu bokk di ko jëmbal mhm. waaw bañ ko di sofental lu am solo la ñu koy loo loolu ma wax ne muy opposition muy pouvoir et que fii en réalité Bachourou, quand même, au plan des urnes, cumule à la fois et la légalité et la légitimité. Parce que Monoko Brandé, c'est 54%. Mm -hmm. Mais quand même, l'autre, il a le parti. <laughs> Mais bon, on arbitre entre légalité et légitimité. Problème, le, le, c est, c est au, au, cours de la République, man, la, la, ah. la, xool problème yi génne ko. c'est ça ñu waxtaane ko du man may joxe solution mais nañ ko waxtaane. ba pare. junj xam nga junj doy na boroom xel. Ah, waaw loolu la olof doy na borom xel. Mhm. ça veut dire Bassirou Diomaye Diakhar mooy président. de la de la République Sénégal. Mhm. am na ñoo xam ne nag foofu la bokkoon. muy euh, Pastef. Mhm. jox na leen lépp. ak kii nga xam ne tamit moom moo tax mu nekk président de la République muy Sonko jox na ko lépp waaye waa Pastef ak waa Sonko. ak waa opposition bu ñu fàtte mukk ne. moom mooy président de la république. mais est-ce que du un précé un précédent dangereux yow mi président fal par décret nga nekk directeur général ngay contester une décision bi mu jël ba noppi. même li ma la wax. man li ma la wax kay. bu fekkee ne <laughs> am nga nopp dégg nga ko. moom mm-hmm. moom ci boppam sax. Mm-hmm. dafa avancé loo xam ne mooy ñun ñu mun nañ nekk en désaccord ak li ma wax. xam nga kooku. Hmm. déjà bu ko waxee avancé na. démocratie interne que démocratie laa ne. yéen opposition mën ngeen contester li nga xam ne maa ngi koy wax. Hmm. man dama am nag ay pouvoir yoo xam ne constitution bi moom ma ko joxe mooy pouvoir u nommé aux fonctions civiles et militaires. Hmm. moom moo am prérogative yi. bu ko defee ba pare. nga gis DG bu mu namee naan ko hey. waaw dañ ko xoolaat kii naan ko dañ koy seetaat dañ koy dolli mu ne leen def leen ndànk. Mm-hmm. def leen ndànk nag. Mm-hmm. waaw loolu tamit c'était extrêmement important ci moment boobu tamit mu wax ko. Mm-hmm. waaw loolu lay wax ne. il faut que ñu xool nan la ñuy trouver des solutions. si si tu veux à un problème qui est présent à nous muy en réalité d'abord <laughs> la concomitance. du conflit entre la légitimité et la légalité. Ah. te kii dafa nekk un exemple patent boo xam ne dafa tegu suñu kaw. Mhm. alors euh, loolu daf ñuy indi ci wax ci sujet transhumance gis nga ko observateur nga même si yaa ngi yaa ngi ci biir ci ñi nga xamante ne aujourd'hui ñoo faroon ci pouvoir ci ay jamono war a nekk opposé wu dem rejoindre aujourd'hui le camp du pouvoir euh, dans beaucoup de localité euh, yow loolu naka nga ko gisee. xam nga dañu am un système. clientéliste waaw un système électoraliste bi nga xam ne moom rek mooy joxe nguur moom rek mooy tax nga yàgg ci nguur te am na ñoo xam ne en réalité da ci seen bopp xamuñu sax xamatuñu luy opposition <laughs> bu nguur ñëwee rek ñu ànd ak moom biñ ma ne am na benn département boo xam ne les sur les seize élus quatorze ya dem nañu Pastef <laughs> bés bu nekk suñu dem mais xam nga loolu nu ko Ivoiriens yi tuddee. Mm. aller au restaurant. transhumance restaurant la ko tuddee. Mm-hmm. ça ça veut dire ce que ça veut c'est la politique du ventre. oui ça que tey loolu mooy loolu problème bi nga xam ne moom lañ am tey mu nekk mm-hmm. problème bu sérieux mooy dañuy toog ba nga xam ne amatul vision amatul principe amatul civisme amatul patriotisme. ay intérêt personnel ak ay intérêt particulier mooy am en politique kooku tam day rey politique mm-hmm. day foog ñu xoolaat ñi ñu xoolaat seen bopp dëgg yàlla xaw a xaw a gëm yàlla comme on dit mm. ba pare aussi ñu xoolaat naka la ñuy def ba nga xam ne en réalité euh, li ñuy wax l'accès à la fonction publique mu am une égalité de tous les Sénégalais ñu mën a am accès accès bi ñu xool nan lañ koy def ba nga xam ne dañu ne bon voilà sur une base impartiale concours yaa ngi fi moom lañ daan def hmm. mais ñu daan def concours yi ñu jël leen de deux appel d'offre mënoo yeewu suba nga jël le port wala nga jël l'AIBD nga xam ni c'est des trucs très pour le Sénégal nga yeewu suba mais tu prends le meilleur des Sénégalais appel à candidature appel à candidature je pense que appel ak candidature bi nga xam ne ñoom posé woon nañ ko war na dellu si war sinon part des états partis mhm. et képp koo xam ne bugg nga ne PCA wala nga ne PDG rek ne dama defar mhm. il me semble que loolu il faut ñu xoolaat ko politique boobu il faut ñu xoolaat ko mhm. te en réalité boo gisee ñi ñu doon wax projet bi ñu bëri adhéré ci loolu tamit loolu ci la woon il faut loolu ñu xool nan lañ koy defee ba nga xam ne ah. accès à la fonction publique c'est pas tout simplement sur la base de la carte du parti nga koy am. très bien alors Alioune Tine euh, mm-hmm. yi ñuy wax ci ASER wala ONAS euh, ban posture la ci société civile bi am xëy na yéen a ngi topp mbir yi ci euh, télévision yi di topp xibaar yi itam même bu dee le premier ministre nee na scandale amul ci ASER ak ci ONAS te it yoon tàmbali na ci liggéey est-ce que itam yéen waru leen ci mën a def am. taxawaay ngir loolu ngir loolu leer ci ñu xam am na wala amul. xam nga loolu man dafa ci am sama sëriñ mooy Birahim Seck. waaw forum civil. vraiment Birahim Seck forum civil moom lay suivre. parce que ñoom ñoo am spécialisation boobu. Mhm. di liggéey ci question wu gouvernance yooyu. Mhm. am ci xarañte. c'est vraiment moom laa ci wóolu. Mhm. Euh, moom laa ci déglu. lépp loo xam ne def na ko day nekk intérêt bu am solo ci man dama koy topp di ko suivre. donc c' est c' est important. voilà maa ngi koy déglu. maa ngi koy suivre lépp loo xam ne <laughs> am na ci maa ngi koy génn mais. comme du